file ci Mbàkke génn góor la ñu teg loxo ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom moom góor googee nag gannaaw ba nu ko fekkee ak takk yàmba góor googee nag ay atam tolloon ci juróom-benn fukk ak juróom mu dëkk ci quartier Touba Xayra ñi ngi ko tegee loxo nag ci rond-point bi nga xam ne rek moom moo nekkee ci Mbàkke moom nag gannaaw woy takk der yi nga xam ne ñoo nekkee foofee léegi rek gannaaw patrouille goo xam ne rek doon nañ ko amal moom moomee nag ñaawoon jot ci moom gannaaw ba ñu ko gisee ci ak bërëb goo xam ne moom kese moo fa nekk ca la ñu dem nag tàmbali daal di amal seen ak liggéey ginnaaw ay fouille yoo xam ne rek doon nañu ko amal ci la ñu fekkee takk yàmba boobee ci góor googee gannaaw nag ba nu ko laajee moom nangu na ne moom yàmba joojee moom ci boppam moo ko yoroon moom góor googee xam la ne yàmba joojee da ko doon tux mu tàmbalee tux ak léegi boobaak léegi mu ne sax fàttaliwu ko mu nekkoon mason jamono ji nag defeere nañu ko ci tribunal bu grande instance bu Diourbel di ko toppee jëfandikoo ci wàllu ku yàmba